li may lancer message daal mooy ñun ñëpp ñu delloo suñu xel ci yàlla te xam ne lii nii maanaam sutura la ndax bu ñu xoolee àdduna fi bi ñu fiy ñëw ëllëguñ fa dara kon bu ñu demee ba nit di mënal boppam rek tubay sax boo ko mënee boo ko mënee jëlal bopp rek mënal nga sa bopp mbub bi boo ko mënee nga sa bopp ndax bi ngay ñëw ko fi kon daal nañ gën a góorgóorlu ñu xam ne réew mi suñu réew la waaw benn nen nag bu ko mbooloo bokkee dañuy fexe ba buñ ko baxal di ko lekk dañ ko mayenees ku ne càpp sa mburu ñu bokk man loolu laa gis daal. kon jamono bi daal fii kon dara doxatul kenn liggéeyatul fii nii. non fi mu toll moom wax dëgg yàlla moom dara doxul lépp taxaw na moom. point Ngent précisément ci station bi nga xamante ni moom mu fi nekk ku ne xam ne ni fa ni yëngu-yëngu yi nga xamante ne amoon na ci biir réew mi dafa taal station bi ndax itam euh, ay ndaw ñoo fi ñëw daal di taal génn wàll station ba tey ba jamono bii ñuy wax ak yéen benn activité mënu fee am euh, kenn jaayatul essence ñi fi liggéey itam daanaka euh, kenn xëyul waaye itam bu ñuy ñëwee di leen laaj euh, la mooy seen ñoom itam leen rek lañ la ñu xam le moo di mënuñu cee mënuñu cee yàbbi ndax amuñu ci ndigal ci seen kilifa waaye daal jamono bi itam mën nañ nemmeeku ba tey dégâts yi nga xamante ni moom moo fi am ndax itam euh, euh, bureau bi moom moo takkaloo ak boutique bi nga xamante moom mooy select bi dañ ko taal ba ba mu daal di jeex waaye itam boo duggee ci biir boutique bi dañuy nemmeeku ni que lépp lu am seen ret maanaam Euh, dañ ko doon jaay dañ ko daal di dindi daal ko yóbbu loolu nag mu nekk jamono yi itam njàkkare boo xam te ni nemmee ko lañ ko fii ci station bi ndax itam am na ndaw yoo xam te ni itam ñu ngi fi doon liggéey si euh, ñaari fan ngi kenn ñoom ñëwul gannaaw bi nga ne nag itam jéem nañoo am ay kàddu képp kuy liggéey ci maanaam euh, station bi rek da nga ni rek mënoo ci wax waaye itam jot nañoo am benn kàddu boo xam te ni kenn ci way dawalkat yi nga xam te ni fi la nekk ñi nga xam ne dañuy daw entre Thiès ak Tivaouane fii ci Romboy ngeen ñoom itam jël nañ ci kenn mu wax ñu xalaatam jox gisam waaye itam li mu xam ne rek moo di euh, euh, euh, nañu moytu li nga xamante ni moom moo di yàqu bi kon à Thiès daal manifestation yi am na fi waaye daal Euh, même bu dee bëriwul noonu noon noonu noonu station bi nga xamante ni itam moom moo nekk fii ci rond point Ngent bokk na ci bërëb yoo xamante ni daal euh, ndaw ñi dañ ko daal di attaqué ba jamono bi euh, képp koo xamante ne det yaa ngi doon daan sa doole jamono bi da nga arrêté li nga xamante ni moom moo di activité boobu noonu xamuñu nag est-ce que dinañ defanaan am déet waaye daal jamono mën nañu wax ni que daal génn wàllu station bi daal ndaw yi nga xamante ni ñoom ñoo doon yënga-yëngal fii ci Ngent daal dañ ko daal di yàqate ba tax daal jamono bi lépp li activité mënatu fi am ndax bu ngeen gisee sax oto yi sànq ba léegi ñu ngi ñëw waaye dañ leen di wax ne que kat euh, station bi fonctionné wul jaayul li nga xam te ni moom moo di essence sans autant euh, ñu fàttali di di leen rappelé bi nga xam te ni itam maanaam euh, manifestation yi am na ici à fi nga xam ni itam moom moo di deux voies ngent yi jeunes yi taaloon nañ ko waaye itam fi nga xam te maanaam moom moo di r itam ñu ngi fa doon nemmeeku a yëngu-yëngal waaye jamono bi daal ici à Thiès tekk tekkaaral gu mat sëkk lañ fi daal di nemmeeku gannaaw yenn yàqu-yàqu yi Euh, li ci bokk moo di station bi nga xamante ni moom moo nekk ci euh, ngent jërë ngeen jëf ci ànd bi ngeen ànd ak ci seen site bii di Thiès Info